Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. Wa Sénégal 4 TV maa ngi leen di siyaar ngi déglu bu baax di tewlu commentaire yi bu baax a baax waaye maa ngi leb tour bi rek di ko tuub bu baax baax dama bëggoon wax tuuti ci sumay gis-gis rek ci wàllu xew-xew bi nga xam te ne moo am Thiès man maa ngi dëkk Thiès waaye dama ci amoon tuuti ay xalaat rek ci euh, xew-xew boobu ndax commentaire bu ne maa ngi ko ciy dégg waaye ci sama gis-gis fi nga xam te ne nit ñi fa lañu war a waxee rek laa bëgg a wax tuuti rek te yàlla na suñu borom dimbali nag wax ci ñuy wax yàlla na ci mucc bu baax ci wàllu njuumte yàlla bu ci njuumte am waaye fi may waxe rek mooy ni euh, famille bi nga xamante ne ñoom la li dal seen kaw muy waa këroon Marème Diagne ñu ngi leen di jaale bu baax di ñaan soxna Marème moomu suñu borom xare ko àjjana ca àjjana yi gën a kawe di mu nekk nag tiis boo xamante ne dafa dal ci ñaari famille ndax bu ñu fàtte ci ñaari famille la dal ndax famille ñoom Assane tamit tiis la bu rëy ndax li tax mu nekk tiis bu rëy da ngay xool nga am sa mag wala sa rakk mu faat bakkan faat gu leer comme bii ni mu leere ak anam gi mu ko faatee euh, nekk na loo xamante ne lu metti la ndax sa famille fu ñu demati toog rek day nekk loo xam ne ci si biir seen biir famille day nekk histoire boo xam te ne dootul dañ histoire lay doon boo xam te ne biir famille dootul dañ danañ koy xoolee fii abadan nga xool euh, tey jii Euh, bépp wax boo xamante ne nit yëkkati na ko rek ci wàllu faat bakkan jotaay bu mu la mënti fekk moo xam muy Thiès moo xam muy fu ne euh, saa buñ ko waxee day mel na rek yow la ñuy waxal ngir euh, faat gi nga xam te ne dafa am ci sa biir famille kon loolu gàkk-gàkk la boo xam ne bu metti la li la koy wanaat mooy dama déglu benn commentaire magu Assane bu jigéen boo xam te ne dafa def commentaire nee na dafa tëdd ba ay deux heures du matin mënul nelaw mu ciy wax nee na mënul nelaw ngir jëyee seen rakk def nga xam te ne dem na ba àgg ci sax ne Assane buñ ko faatoon foofu sax moom moo ko gënal nga xam te ne kooku mooy képp ku bañ gàcce ak ku bañ euh, jëf jëf ju ñaaw mooy mooy mooy mooy xalaate noonu nga xam ne gis-gis boobu moom mu ci amee nga xam ne kon ñoom loolu ak rëccu mënta nekk rëccu ñoom bu ñu amoon benn pexe boo xam te ne mën nañ ko def ba Assane du faat ñoom dinañ ko dana danañ ko def waaye nag Euh, li ma ci euh, wax comme conseil ci ñaari famille moo xam commentaire yi nga xam te ne ñoo wax muy am ci ñaari famille euh, su suma sañoon man li ma jàpp ni moo gën mooy ñu bàyyi commentaire yi ñoom ci ñaari yi di leeral wala ñuy bëgg a dindiku di di di loolu su ma sañoon ñu ñu ñu bàyyi ndax moo waral ñi xamul di ci gën a commentaire amaana ñi wax la ci loo xam te lu lay lu la naqari tuddoo ci man dara ndax boo seetee nit ñi dañuy wax naan ay waaw yaayu soxna mareem nangam nangam xamoon na seen diggante nangam nangam yooyu yëpp maruta wax ndax nit ki du faatule ba nuppi ngay wax wax boo xam ne day jamaat ci xolam mu gën a naqari loolu tamit dañ koy bàyyi xel bu baax a baax ndax ñun ñiy wax yàlla dogal na danoo nekk si jàmm rek jéeya dalu suñu kaw ñu toog suñu kër yor suñu téléphone euh, def suñu commentaire ñu jàllaleel ñu ko ci jàmm la ñu fekk waaye bu ñu fekkoon ci leneen duñ ko tal kon donc ñi nga xam te ne nekk ci aw am ak naqar bu rëy a rëy nañu bàyyi xel loolu wax yi nga xam te ne day gaañ ndax wax tamit luy gaañ la ci ñaari côté yëpp bu dee euh, nijaayu soxna Mariam bi nga xam te ne moom tamit wax na déglu naa commentaire mu wax ci. ba waxee xol loolu dañ ko war a comprendre kenn warul dal ci kawam ndax euh, mbir mi moo rëy te metti dañ leen a faatal mu rëy te metti amaana wax na ci sax ba ne boo fekkoon Assane moom ca ca jam ca tàng-tàng ba dana ko dóor birig waaye loola amaana bu ñu doxee ab diir ku ko waxaatoon lu ku ko ci waxaatoon moom dina génnaat ci loolu ngir la nga daal loolu jàpp naa ne du moom waaye jëf ji Assane jëf moo ko wax loo te it mën naa dal ku ne it ñoom de mën dal ku ne kon nañu bàyyi wax yi nga xam ne dañuy commentaire di jam ci famille di wax ndax itam ma waxaat rek tuuti ndax nit ki mënta nekk ci naqar ba noppi nga wëlbatiku di ko di ko di ko dolli naqar amaana wax boo koy wax rek mu nekk lu naqari lu métti ci moom bu dee euh, ñi jëm ci côté Kër Assane man bu mu amee conseil bu ma leen di jox mooy lu mënti xew ñoom nañ dëkkee di jéggalu rek lu mënti xew ñoom nañu dëkkee di jéggalu ndax itam seen doom moo faat ci anam bi mu faate nga xam te ne euh, dara mënta layal euh, nit ku faat bakkan amul lu ko mën a layal amul lu ko mën a layal tey jii loo dindiku dindiku ak loo wax mu mel ne dangay ngay da ngay da ngay da ngay dindiku tamit du tax mu mu mu rafet ndax li xasa am ba noppi Euh, ñoom su ma sañoon ñoom dëkkee tuub ak jégalu rek moo leen ci war waaw te fésal ko lool nag ndax itam dina dimbali waa Kanoon soxna Marème jaañ ba tax lii naqari seen xol xaw defal leen loolu tamit bëgg naa mu am ndax euh, tey ji saa boo xamee ne dangay dindiku rek di nga gàkkal beneen camp bi ngir mën a defar sa bopp te loolu fii mi ngi ciy am. commentaire yi di ci gën a am amaana wax yi la ci naqari te ñi wax ñu ëpp duñu xam duñu xam ndax mbir la moo xamante ne mën ngaa bokk ak moom koñ sax amaana te doo xam ci mbir yi dëgg-dëgg naka la demee moo tax ki sori wala ki dëkkul Cees euh, wala ki ko dégg rek di wax moom war naa bàyyi xel loolu ndax mën ngaa jege jege lool te yow dëgg-dëgg ni mu demee doo xam ni mu demee kon donc loolu bëggoon naa tamit ñi bàyyi xel loolu bu baax a baax te it moytu Euh, di ci wax ndax bépp jëf lu mu métti métti lu mu diis diis nekk aw tiis li la ciy dimbali mooy li la koy fàtteloo ndax fii ak yaa ngi ciy wax rek commentaire yi di ci gën a am rek doo ko fàtte te mën naa dem ba tax sax naqar di gën a yokk naqar nag mën naa yokk ba révolte am te it loolu ñaan ñu ko yàlla yàlla na fi yem waaye loolu yëpp nañ koy bàyyi xel ba tax na ku ci def commentaire nga xam ne tiis la boo xam te ne amaana eh, ñi ko ñi ñi ko ñi mu dal seen kaw daanañ ko dégg ci yeneen famille di ko dégg ci yeneen raison di ko dégg ci àdduna bi fu ne tey nag loolu la yàlla mat ba indi ko mu dal seen kaw te it nattu la boo xam te ne yàlla day jël ab nattu boole ñetti famille muy benn nattu mu teg ko seen kaw ñoom ñëpp ñu bokk ko mu nekk naqaru tiis ndax bu dee ci waa Kurun Assane nattu la lu metti la bu fekkente ne eh, ci waa ko nun soxna Mariam Diagne itam lu lu naqari lu metti la bu dee ne ci borom këram tamit naqar lay doon ci moom lu metti la te it loolu mu mel ne ñetti famille la jënn jëf ñëw nekk nattu ci ñoom ñëpp di naqar wu tiis te it li ci gën rek mooy li nga xam te ne moo leen koy fàtteloo loolu daal foog naa ne moo ci solution ndax eh, lépp loo xamante ne ni eh, dafa am mu ba dépassé la mu doy te it fii ak ngi ci commentaire ku ne di wax wax yi di jam fu ne euh, mën naa dem ba indi naqar bu méttee métti ci ñoom ba tax euh, amaana ñun euh, gis-gis yi nga xam te ne ñu ngi ko ci joxe léeg mu nekk lu rafet léeg tamit mu xaw a juunu te loolu yëpp du ci gën ndax li ma waxoon rek mooy mbir bu nekk boo koy yëkkati wala kaddu wala jëf di ko teg ci kaw nit wala nga tudd nit wax ko ci turam nattal ndax buñ ko waxoon ci yow dina la neex wala ñu waxoon ko ci sa jur wala ci sa mbokk mula jege du la neex boo xalaatee loolu nag kon looy wax rek war naa rafet te it lii lu lu naqari lu metti la man na yàlla dafa dogal depuis boobaak léegi damay topp commentaire yi di topp vidéo yi loolu lépp lu ci bari maa ngi koy maa ngi koy maa ngi koy teewlu bu baax a baax loolu nag wommatu na sax ci man def ci man tiis boo xam te ne nii ak naqar goo xam te ne nii ak yërmande goo xam ne ëmbal naa ko waa konoon Marème Diagne waaye ëmbal naa ko itam waa konoon Assane ndax itam li bu fekkoonte ne lu amul la kon ñun ñii di commentaire ñëpp kenn du ci jote waaye ñun ñëpp dañu xam ne ay njuumte la loolu yàgg na ci àdduna njuumte yàgg na ci àdduna luñ ciy wax rek war naa rafet tamit loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ba loolu womatu na sax ba yàlla dogal na comme doomi cees laa ma dëkk Thiès womatu na ba tax na euh, kër famille bi nga xam te ne ñoom lañ faatal muy konoon soxna Marème Diagne yàlla dimbali na ma ba dem naa fa jaale naa euh, way juróom bu jigéen ak way juróom bu góor toog nañ waxtaan nañ wax nañ waaw ma xam sama wax joo xamante ne wax ju rafet la rek wax waaye loolu nag ay sentiment ak yéene ak yërmande moo ma ko def loo taxul sax ma xam leen ñoom ñaari ñëpp xaw ma ci kenn waaye loolu topp gi ma ko topp rek tax na moo woomoto ba tax samay sentiment daal yëg ngir dem ba ci ñoom jaale leen loolu ndax itam euh, segam autorité yi ñoo koy dégg ñëw te amaana xamuñu ko woon euh, moo xam euh, maire yeeg ku ne di fa dem la leen fa yóbbu ñoom ngir seen taxawaay man itam gis-gis boobu rek laa amee ci sama jëmm ba tax ma dem fa jaale ji leen man itam loolu rek moo ci am ak sentiment yi nga xam te ni naa ko ci mu nekk tiis wu naqar boo xam te ni ci doomu Thiès la dal dal ci waa Thiès yëpp waaye li jëm nag ci li nga xamante ne nii mooy commentaire yi nga xamante ne xaaritu Assane yi ñoom ñoo ko def nekk ca Maroc toog nekk ensemble di ci waxtaan. di waxtaan di wax ci Assane lu baree bari di yàq mel na ay waxu yàq der la niñ koy ni ñuy waxee rafetul dara ci deru Assane mu mel ne dafa nekk ci tiis rek ak nekk ci jéye problème ñëw rek ñu am pour di wax loolu waaye ñoom ñëpp foogoon nan ne ku ne mën naa wax ku xamul waaye ñoom seen wax warta mën a jëm foofu ndax damay seetlu ñuy baamtu benn wax rek Assane amul yére amul yére nangam nangam amul li amul laa mu mel ne ñoom. Euh, ni ñu koy baamtoo daal waxu noonu daal laa gis xam naa ne ñu koy yàgg noonu lañ man gis naa loola te it euh, gi nga xam te ne moo am nekkul tiis ci ñoom safu leen naqariwu leen baag ndax niñ koy waxee di reetaan di wax di reetaan di wax ko avec ouvert loolu foog naa ne maanaam bu fekkoon ne tiis la ci ñoom duñ ko waxee noonu ak anam ak lu mënte xew lu xam ci Assane comme ñoom nekkoon nañ segam man mii nga xamante ne nii xawma ma Assane ak ñeneen ñu mel ne man xaw ma soxna Marème Ndiagne lii bi mu amee yàlla mi ngi ci na ne ay yërmandi rek laa leen ci ëmbal ba tax na euh, may suivre euh, commentaires yi. ci ñaari camp yëpp du ma ngàññi kenn yërmande rek laa leen ci ëmbal c'est man maa mën a am yëg-yëg boobu ci ñoom ñoom itam war na ñoo mën a am yëg-yëg boobu ndax lu mu gàtt asan Assane naa nekk ak ñoom. lu mu gat gàtt rek Assane mës naa nekk ak ñoom kon loolu war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ndax euh, ni ñuy waxee di ubbeeku di reetaan di wax euh, mel na ni tiis bi safu leen daal yëguñu ko ñoom daal mel na ni naqariwu leen loolu daal loolu nag euh, lu ci lu ci lu ci metti la te loolu daal moom ñaawlu naa ko bu baax a baax a baax te bëri na ñu ciy ay critique kon loolu tamit ñu bàyyi ko xel bu baax a baax képp koo xamante ne amaanan naqari na la itam li nga xamante ne yaa ngi koy jéem a càmbar di poser ay question lu tax lii lu tax lii amaana ñun euh, mën nañoo nekk di ci def suñuy commentaire waaye war nañ koo rafetal ndax li tax ñu war koo mën rafetal li ñuy gëstu yëpp di ko bëgg a xam di teg naan ay nii la war a demee yaayam nii papaam ba mu defee lii lu tax lii lu tax lii loolu ñun ñu def ko amul important parce que lu tax amul important yoon foofu lay amee important ndax ñoom seeni jëf moo existé ci jëf ji waaye ñun suñuy jëf ak suñuy wax mën nañoo wax nii rek waaye daanaka suñuy wax ci fii ñu koy waxee fi lay yem ak ci gataay yi waaye ñoom ñi nga xam te ne ñoo yor dogal yi nga xam te ne jëm nekk ci wàllu justice ñoom loolu foofu la amee njariñ te it xam naa ne lu jëm ci seen liggéey la te foog naa ñun segam ñoo ci mën a wax nag assez ñoom ñi nga xamante ni ñoo ko jàng ba mu nekk seen biir kon loolu mën nañ ko bàyyi ak ñoom rek ki ci des nag mooy ku ciy wax nga wax ci loo xam te ne da ngay dimbali ñi tiis bi dal seen kaw moo xam ci ñaari côté yëpp da wax lu leen dimbali waxal lu leen dimbali moo xam ci waa konoon soxna Marème Diagne moo xam ci waa konoon Assane mais ama waaye wax waxee ci noo xam te lu metti lay doon tamit nañ ko moytu bu baax a baax ndax ni ma ko waxee rek waa konoon Assane ñoom fameem nañu fexe xëy na lii ci tàng-tàng bi waaye nañu fexe ba lu jamonoy dox nañu fexe dëkk jéggalu fexe euh, rafetal batax ñi nga xamante ni jéyee bi dal na seen kaw mbir mi nekk lu apaisé wu ci ñoom loolu daal am naa ko ci kum gis-gis maa ngi jégaluwaat bu baax a baax doon bu ma ci waxee benn njuumte maa ngi koy tuub bu baax a baax te koy jégalu am ci yéene bu rafet rek moo tax ma ma wax ak gis-gis bu ma jàpp ne war naa ko mën a wax mu jariñ donte kenn nit lay doon loolu daal moom ma wax loo ak boole koog nag dëkk ci dëkk bi te dégg commentaire yi jàpp ne war naa cee mën a wax li ci boole ñëpp daal moo ma ci boole kon ñu ngi yemale foofu kàddu yi ñu ngi tuub tey jégaluwaat bu baax a baax jërë ngeen jëf.